xam nga des fois genre yi da nga koy dégg bon euh, doo xam fooy taxawee mais sa yaram sa yaram dina daw en fait parce que des fois sénégalais yenn ñi sax lay wax duñu comprendre mhm. certaines réactions mais nit ki li muy yëg ci xolam moom moo moom moo ko xam li tax muy am yenn réaction yu négatif yi moom moo ko xam parce que duñu xam ñi ñenn ñi nga xamante dañuy seetaan li ñuy sacrifier ñoom ci seen àdduna mhm. pour dab bànneexu yenn ci seen i seen yenn ay ci yenn ci ay sénégalais parce que parce que du ñëpp Mhm. je peux le parce que ku ci nekk li la booleeg Sénégal du du ay mbokk kese. du ay mbokk kese mhm. peut que da nga jël sa alal investir ko Sénégal. Euh, peut-être da nga jël euh, say moyens personnels. investir Jérôme ñun Sénégal la ñu am. Ah, même boo fi dara mais. donc am na loo Sénégal am na loo am na loo xamante ne dafay xew yow. sa sa ça passe su ton nez nga koy gis sa xol di metti mais da nga ci am benn impuissance boo xamante ne mais daanaka du tu tu n'as tu n'as que tes tes tes yeux pour pour mhm. pleurer. te loolu lan moo ko indi yow da ngay jàpp ne lépp ay politique ñoo la koy teg te politique yooyu yow. ci au fond de toi xam nga ne ñii. waaw ñoom ñooy def nii allo oui. allo waaw naka yi tey yéen a si jàmm. ñoo ngi sant yàlla foo ñuy woowee. waaw maa leen di woowee depuis Rufisque. depuis Rufisque. alhamdulilah naka waa. ci bismillah Sénégal yëpp la Sénégal ak waa bitim réew ñëpp a ngi lay teewlu. voilà Elzo la Elzo Elzo Tëngéej quoi. ah d' accord <laughs> bu Tëngéej. Elzo ñu ngi lay nuyu. voilà mais gis nga euh, actuellement nii. Mhm. Euh, gis naa sax ngeen bi apaiser gars yi mais actuellement su ma ko sañoon. Mhm. dama naan euh, yëpp daal dañu toll baay boo xam ne day day daggan sax kuy saaga sax ngeen bàyyi ko mu saaga. taal kuy daggal sax. kuy dagal sa ngeen bàyyi ko mu dagal ah sëñ bi sëñ bi. waaw man du daggal moom mais. <laughs> waaw waaw mais xam nga. dama la wax rek ni la maanaam toll tolluwaay gis nga boo koy séq ak ñoo xam. si on comprend maanaam. maanaam li tax sa. voilà voilà très xam nga tax a wax. sénégalais yi foog ñu bàyyi ñu mhm. exprimer wu. Mhm. ñu wane seen na ci li nga xamante ne moo xew ci réew mi parce que Sénégal ñoo ko bokk ñun ñëpp nag bokkuñu yem mhm. ñun ñëpp bokkuñu xalaat mais ku ci nekk am nga taxawaay te sa taxawaay ak foo mënti Euh, far mhm. ak foo foo loo loo mënti am comme xalaat dañ la ko nangul donc loolu tax ñuy ubbi tamit euh, waxtaan bi ngi mhm. ku ci nekk rek la nekk sa dënn nga mën koo génnee ndax loolu xëy na moo lay euh, moo lay may nga am feex tuuti donc c'est pour cela mais mhm. daggal nag ëpp naa def xam nga tamit <laughs> voilà comme que ku nekk la ñuy seetaane ci vidéo yi day law itam da ciy am solo ñu xaw a teggi ni tuuti wax mais maanaam mais maanaam maanaam gis nga comme comme comme lii ñu ñu teg ñun askan daf ñu toll foo xamante ni maanaam dinañu pousser parfois que ñu déraper ba nga xam du doon suñu tayeef quoi. parce que mhm. parfois sax ci koy def gën yaru est ma li ma la. Mhm. comprendre nañ la bu baax. voilà sànq na tàng na na fi jër <laughs> man aal naa fi on comprend très bien. voilà lu lu ne ci xol dafay feeñ c'est c'est c'est naturel. jërëm koy dama koy déglu saa sànq sànq yëngal na fi am yëngu <laughs> bu tàngee ma tàng baax. non no c'est ça parce que man je sais très bien que ni li ñuy yëg rek ngeen di yëg. dëgg la. Mhm. oui parce que yéen seen seen seen con seen contribution ci wàll mooy ngeen jox ñu antenne bi ñu ñuy exprimer wu mhm. mais léeg-léeg sax gis ngeen ni ngeen ni ngeen ni ngeen ni ngeen di waxee ñun ne da ngeen di xam ci yéen aussi ñu tol yéen a ñu raw foofu sax ci métti. Mhm. voilà mais nag euh, li am solo te am solo mooy jàngat bi. gis nga wàllu hôpital man dama ko xam bilaay bi muy wax daf mel li newoon sama dën lépp la ma bëgg la ma la ma la ma waxal. Mm-hmm. parce que gis nga li mu wax ci Bougane nii man man man man loolu dama ko dama ko yàgg njor. Mm. parce que man mënuma gëm yow tey bu fekkente ni yow nee nga réew moo la ñor yow. te bëri na ci moroma parce que tey je crois que dégg sax borom xamam di la jox benn benn misaal ci ci ci ci ci xorondom xorondom wala sax. Mm-hmm. nee na bu benn euh, gunóor deewee ñu bëgg ko jariñoo duñu am duñu am duñu am maanaam euh, euh, kàttanu wax kàttanu kenn ku nekk jël ko mën koo yóbbu ci sa ci sa abri mais day ñoom ñëpp dañuy ñëw sot xëcc xëcc bu ñu ñëwee sot kenn du xëcc dem dee kenn du jëm dañuy jëm su ne dañuy xëcc dañuy xëcc jëme benn boor hmm. xam nga hmm. mais yow man comprendre yow nga ñëw nga ni yow da ngay xeex pour que yow xoolal coono askan wi ah léegi nga gis koo xamante moom il mieux placé te yàlla def ko ñu nangul ko nii lii am na koo xamante ni moom la yàlla lii ngay lii ngay am na yàlla moo may kii moom mu ëpp la la ëpp la ci mbooloo ëpp la la ci kot mm-hmm. te yow mënoo bootu ci ginnaawam kon yow xeex sa propre intérêt moo la ñor mm-hmm. ñun xamoon na ñëpp ni bépp nga xamante ni da ngay jéem a aider yi ci coono bi ñu nekk souffrance bi xamoon na ne Ousmane Sonko wala wala golo Ousmane Sonko sax il est le mieux pour que xoolal pour def loolu buñ ko dooleele mais yow mënoo ni da ngay xeex système bi ba pare yow tey jii ngay xëcc jëm di diviser ay say affaire sew ak yooyu mhm. xam nga loolu affaire nifaax la nañ ci nañ nañ nañ bàyyi loolu bu ñu kenn nax mhm. man temps yi naa ñu ngi Macky Sall na quelques nit ci kaso beeg euh, pour jéggal leen xam nga loolu lan la woon li ma ko déggee li ma wax dama ni dafay préparer benn salle boulot boo xamante ni xam na ni duñ ko ci bàyyi ci kaso yi fokk mu amaat ay client mu ni xajatuñ ci xaaral ma génn nit ñi bu ñu juum mhm. Macky Sall du def dara lu baax pour askan wi lépp lu mu def rek xool pour won tubaab yi ni maa ngi liggéey won leen ni leen xoolal man mooy loolu mais deful dara pour noflaay askan wi xam nga mhm. moo tax bu fi nomee benn koo xamante ni ay peut-être gis nañ ci moom tuuti di ci yëpp suñu bopp mu ni aha ah, daal ko fay déranger maa ngi joxe sax parfois ay exemplaires ci ma ni am na am na benn année mu nommé Aminata Ndiaye Mbengue def ko ministre de l'élevage de l'élevage effectivement mu commencé jël camions yi di ubbi frontières yi di yóbbu defal teggi teggi teggi tax yi xar commencé dellu comme delloon ci wàllu yomb ah mhm. seen commencé gis seen bopp naan mosuñoo am ku ku ku ministre bu mel nii mu ni kon askan wi lii day neex ci yéen Mm-hmm. ni ko fa doññ tegi ko fa rob fa benn koo xamante ni xoolal dafa jafel affaire yi alpulaar la te man waxlaa de day kooku dafa teg loo xamante ni ni xoolal na jafe mbokk mi nañuy jaay na seer dafa moom dégg naa moom éleveur la moom ci boppam ay yar nga nga noté loolu mais mais mais of nag na fi ngom boobu ñu fa tegoon mais mu épinglé mu épinglé ay nit ñoo xamante ni ay cadre lañu ni leen ñiy taas nañ alalu réew mi ay milliards te benn milliard ku ne xam na lu mu mën a jëriñ askan mm. mais mun la tegal ñuy loxo dañ ko déedéet mm-hmm. yow sax dama lay jële foofu parce que bu boobaa euh, bu nangoo milliard def ko ci askan wi day yomb ci ñoom mu jële ko fa teg fa keneen mais amul ay temps mu jël muxtaar si sa mii woyofal yi ñu indi woon fi woyofal yoo xamante yàlla xam ne boo ci mësaan diwal cinq mille francs bu ñu la yóbbu xool au moins quinze jours mhm. ah ba muxtaar ni xool à pour pour couper ñi nga xam yor nañ ko bu ñu couper fi nit à de jeudi parce jeudi début week la dañuy ñibbi seen soxla même bu ñu amee woon xoolal un million de ci mbor bu couper à de jeudi ah muxtaar dugal tontóor yi mu commencé yi muy noonu day yomb askan yi xaaral ma jëlee ko mhm. ñett mais Muxtaar Muxtaar nu mu tooti euh, ki yoroon ministre des euh, Ba taxoon rek Matar Ba Matar Ba ñëw jib ñu nekk ku disponible wante man ànduma ak moom mu nekk bis moo Ba yow moom boo boo boo boo boo tey da lay wuyu mu disponible am wërsëg jig jig jig ñu mu ni loo lii day yomb ci askan mu jëlee ko hmm. teg ci gis nga li mu jur yankoo ba jatara gis nga li mu jur Simla ak mu luubal ay milliards yaa ngi seetlu yooyu yëpp mais jamonoy euh, jamonoy euh, nu Ebola bi mais mu xëccoon ministre ministre de la santé boo xamante ni xam ne lii mooy liggéey lii la xam muy Eva Marie Coll Seck hmm. mu tekkas ba cas Ebola bi ñu amoon ñëpp diñ ko réussir non ñi capable ñu pour loolu seen i compétence eggul fii xoolal nag euh, nu mu tëddee euh, Eva Marie Coll def ay pexem ba ñu réussir loolu ñëpp di ñu applaudir ñëpp di ñu naw mm. mais mu ne noo kii def def Eva Marie Coll politique am na ci comme lii ngay gis nii dem amoo xaalis la aj moom politique am eggoon na ci boo dee dañ lay dañu pare soog a lijjante ak yow mm. mu ne kii su ma ko bàyyee noflaay la ci askan wi mm-hmm. xaaral ma jëlee ko fi kon suñ la déggee daal lépp lu doon dox lépp daf ko dindi. daf lépp luy arrangé askan wi waxuma luy dox de lépp luy arrangé askan wi laa la. d'accord am na luy dox loo xam ne dindi wu ko. Mhm. mais loo xam noflaay yi néew di doole yi laa la wax. Hmm. ah parce que xam lu mu namm ci lool il faut que mu seme benn suuf ak benn benn benn xiit ci ñoom boo xamante ni duñ tal yenn yi. loolu système mu kii la woon système mu américain yi la woon da nga coon fekk naan xiifal ma di ma liggéeyloo mhm. ma aw doole yi xeex ah jàpp sama jabar def mbindaan futti ma sama kanam yi doom comprendre nga moom système yooyu lay indi di ko def moo tax gis nga il faut que ñun joxante loxo nekk benn man du ma sax du ma sax condamné gars yi naan booy xeex nañ ba sonn nag nangam nangam parce que euh, bu ñu toogee seetaan mais comment peut-on peut-on se battre avec quelqu'un qui se bat de manière déloyale mm-hmm. mais ñoo xam dañ leen expliqué yow xeer jariñu leen dara boo leen gaañee di nga dugg buñ la tegee loxo yow buñ la gaañee buñ la rayee nga fer yow gaañ rek buñ ko defee di nga dugg mais buñ la rayee rek nga fer mm-hmm. gars yi dañoo raag ba naaw dañoo mënta raag ak ñooñu comprendre nga. Mhm. mais kon bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu xeex ñu li ñu li ñu def ba xeex jotee xeex nañu actuellement nii xeex jot na dañ cee mënul dara parce que ci bu doon sax am na lu muy sóor comme tubaab yi comme ñooñu jógee nañ ñooñu intervenir sax te nekk bitim réew ak ak tubaab yi boo jotee benn ministre boo jotee président sax dañuy jël dëgg ak ak yelleef dox la bu dee yaa ko moom xëj ko ko moom. bu doon président mel nañu am wala njiit yu mel noonu la ñu am mais tey ñoom boo xeexee ak ñoom tey jii mun mun nga nga sañ jàpp ah xoolal mais mais xoolal xoolal xoolal député yi génn dem dóor leen ba ñu jaaxaan laa lay wax ji après am na ko am nee na bi ñu ko dóoree ba xaw a damm loxo bi dem yaa naan leen pardon ah et loolu fu muy mujj yaakaar même donte donte bu bu porté fële fu muy mujj <laughs> kon léegi yow kooku boo xeexee ak moom tey jii xoolal tey mu gis ngeen mais ñi doon ñi ñi nga jot na leen a rey jamono jamono jamono yële paas mais tey jii fu ñu ban enquête lañ ci ban rapport moo génn seen affaire li nga xamante ni franchement xam mooy ku ne bu mu mm-hmm. muy chrétien bi muy athée bi muy musulman bi ku ci nekk boo jullee jàkkaarloo ak penku nga ne suñu borom yàlla na yàlla atte ñoog Macky Sall te musal ci moom ak képp ku koy jàppale ci lii mu teg askan <laughs> man de démb démb démb façon ñaan parce que parce que parce que les mots ont leur ont sens xam nga tey su nekkee danga nga jàpp ne yow yaa ngi ci yoon da ngay ñaan yàlla na uh-huh. yàlla sunu borom atte parce que uh-huh. yow mi nga xam ne da nga jàppale dañ la tooñ da nga ñaan yàlla mu àtte parce que la nga xam ne xañ la ko te jàpp nga ne sa àq ak sa yelleef ya sa waruwaay la yaaka moom ñu xañ la ko ci xañ woo xamante ne dëppoowut ak yoon su la neexee nga ñaan suñu borom mu àtte te suñ te suñu borom moom dëgg te kay ma xamal la